ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di balax ñep waaw di leen xamal ne leen yéen a ngi ci seen émission nañ ko waxtaanee namoon ngeen ñu waaye ñoo leen raw émission bi nag ñu koy defee fii nga xamante ni moy mooy Thiès Prestige waaw di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñuy ñaari jur bu baax a baax a baax a baax tey nag dañu invité ñaari ndaanaan ñaar ñoo xamante ni kenn du leen na fii ci àdduna rawatina fii ci Sénégal di ñaari ndaanaan ki nga xamanteni ni nak mo fété sama côté ñu wax euh Ablaye saw ñu gën ko xam ci sayidina borom soleil levant ki nekk ci wétam di fallu fallu ngom képp ko xamanteni ni ah yaakaar naa da ngay déglu zikar dëgg yaakaar naa ne di nga ràññee ki nga xam ne mooy fàllu ngom di taalibi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tey ñu dalal leen fii ci plateau bi war a waxtaan ak ñoom ci seen carrière euh, Ablaye maa ngi lay nuyu. dërëm maa ngi lay fay. Euh, Fallou ziar naa la. waaw jaajëf dara maa ngi lay delloo ziar bi bu baax a baax a baax di macha allah euh, ablaay suñu bëggoon a xam tey jii kan mooy ablaay saw ak Ablaye saw fan la dooree ba tey fi mu toll nii tey lan ngay leeral ci loolu. waaw dara maa ngi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan aussi di la di la nuyu vraiment di la remercier ci invitation bi waaw loolu dërëm wax ci. dina jafe du jafe parce que man art bi mën na ni defuma ko won sama sama objectif daf ma dab luma ma dab la waaw comme liñuy wax rek yalla mom nopi na dem euh, man bo gisé ma ngi doon yëngu ci football ma nekkon ci nek ci sama morom vraiment amon ci yaakaar nak bu baakha baakha baax la preuve moy ñima nekkulon ñep machallah yalla allah defal na len jamm ñom kenn ku nekk yang ci ay club du mag man nak ñu dem ba ci biir ma amone blessure ci biir blessure bobu bu yag nak manatu ma won dem di entraîner comme que entraîner ma won nak ay ñom cheikhou sama mam moko yar sa neex à chaque fois ci man la doon nek sama kër un jour ñu am ben tournage bu ñu wara def ngenteli ñu war ko tourner ñuy dem ñu prévoir ben séquence bo xamni dañoo dañoo manqué ku war a ñëw jóge Europe pour compléter ko ñu proposé ma ko loolu 99 la. 99 1999. bi ma ko proposé ma bañ. xam nga rek loo xamul quoi. waaw xaw ma ko ma am ci benn complexe aussi xaw ma ko ko quoi. ñu wax wax man leen non du ko def ñu insister insister Cheikh Ndiaye wax xam nga ma ñëw def ko benn yoon malgré que génnuma ci. Mhm. mais def naa ko. mais lu ñuy gën di dem théâtre mbedd yi ma leen di top spectacle yi xam nga bâche yeeg engouement bi nit ñi xam nga mu neex xale jigéen yi waaw waaw xam nga waaw xam nga yooyu yëpp <laughs> xorom la ci bon ci yooyu nag la ñuy dem ba ci biir affaire di ngay ngay ngay xam nga dañ naan aar ba fiir mhm. waaw ñu mel ni rek doomu taal la bu la taqee moom mënoo mhm. ko booleeg dara mhm. ñuy dem ma leen di topp entraînement di jot. Mhm. may tayal di daw entraînement. di leen topp di ànd ak ñoom ba tey moo moo moo indi sama sama sama doon artiste comédien. waaw Ablaye su ma la déggee ci sa biir wax tey am na ñoo xamante ni nii say génération lañ woon tey jii ñoom ci ay club yu mag. Mhm. am naa ci sama am naa sa benn xarit boo xamante ni man jàkkaarlook naa man. Mhm. ne ma Sénégal musuma gis ku dàq football Ablaye saw muy Fallou Dia ñoo ngi koy nuy au passage. man moo ti moo ma tiim. wallahi wal azim manako lay saw mom lay nuyu munuma manako sama xarit la munuma deureum est ce xam nga ne koku gisuma ko dakonu football Senegal. comprendre motax lolu dama ci dikkat ak yow euh mais ablay euh ar bi nga nek tay ci ni tay gis nañ ne yaangi bir soleil levant def nga ay produits bari bir soleil levant tay sayidina biñ koy xam deug ci tolof tolof lañ ko xamé nga joué ci loo xamante ni nii tey jooyloo nga àdduna jooyloo nga ñu bëri tey Ablaye Sow ku la gis daraam lay gis ci yow macha allah mais Ablaye bi ñu jékki-jékki euh, Ablaye bi ñu gisoon ci tolof tolof euh, gisatuñ ko maanaam lan moo xew ak ci bi nga nekk muy troupe bu Soleil Levant nga ne fi nga bokk mais dañuy gis produit yu bëri yoo xam ne Soleil Levant da koy def mais dañuy laajte ana Seydina ana Ablaye Sow mais duñ ko ci gis euh, problème bi lan la lu xew. dërëm pour man problème amul parce que boo gisee ba ci royukaay sax da ma fay gis. waaw man dama gëm ni nit am na loo xam ni ma maanaam boo boo nekkee xale di jàng. Mhm. boo demee ba tollu fenn fi. Mhm. war nga taxaw xoolaat sa bopp. xool ci li ngay yëngu lan la. xool ci li ngay yëngu lan la maanaam mooy. da ngay gis apprenti nekk tailleur mais bu demee ba xam lépp lu wàllu tailleur di def coupe yeeg dagg yi ñaw yi bees yeeg lépp bu demee ba mën ko ñaan na yàlla demal boppam ñaan yàlla demal boppam te man loolu laa gëm maanaam loo nekk rek yàlla fekk la ci mais jéemal lu mu metti métti métti métti jéemal man damay jéem n'empêche que maa ngi biir soleil levant ci laa nekk samay xarit dafa nekk muy Aziz di Cheikh Ndiaye di Saneex ñeneen ak ñeneen soleil levant dërëm ma wax la tey ni mbindeef mënu ma faa jële amul ñun ñëpp benn lañu ñoo ko bokk ñoo fa nekkandoo mais day toll moment boo xam ne aussi yow jéemal boo gisee ni tey jii par exemple mën naa ni sama sama première kii bi ma njëkk a essayé ak yeen la ko essayer muy muy muy keur ge koor keur mm-hmm. kër gi ak koor gi comprendre nga tay ji man na ni ci lolu la ñeuk a fitu né damay def dara te lolu def def bobu ma def tay ji rëccuwoo woko rëcciwu mako parce que mm-hmm. tay ji mm-hmm. jaar nga ci meles jaar na ci la kombe jaar na ci ada jaar na ci ba tay fi ñu toll ni man lolu sama sama sag la dëgg la waaw lolu lolu sama sag la ma ci sante yalla di la wax ni nag Soleil Levant ñun ñepp ben lañu boo gisee wiiri wiiri daw na lu yàgg may dugg di génn mais fin bi ñu koy tëj dama cee bokk. dama cee bokk macha allah euh, Seydina kontaan nañ ci yow bu baax ci leeral bi parce que lii leeral ko dafa am solo. parce que nit ñi dañuy laajte Seydina lan moo tax génnatul fii dafa am ak gaay problème dafa mer ak yooyu tey lii mu def nii daf ci baax pour doomu aadama yi xam. fàllu damay ñëw ci yow. Mm. mais dama bëgg fàllu bala nga bala ñoo dugg ak yow ci waxtaan bi. Mm. nga may ma benn deux minutes rek sikkar bu benn sikkaru deux minutes rek waaw loolu dama la koo ñaan ya allahu ya alimu anta allahu wa ya xabiru ma lahu shbahu ya allahu ya alimu anta allahu ويا حبير ما له شباه هب لي من لدنك ما نحب يا من له أمور أنت رب وعافنا والطف بنا ونجنا وغلتك فينا وكن لنا يا ربنا بقرمة هادي عليه صليا مسلما في صحبه وكليا بحرمة هادي عليه صليا مسلما في صحبه وكن يا barke borom ah sëñ Fallou xol yi sedd na macha allah euh, fi nga dikk macha allah xol yi sedd na tey ji fii nga dikk tey xel yëpp day dem ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul waaye xel yëpp day dem ci Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké waaye di nuyuwaat bu baax di leen xamal na leen tey euh, bàyyi empêchement am dafa xaw a malaat pour ñu xamal ko nit ñi macha allah ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yëkkati ko ak jàmm defal ko tawféex ci barke Seydina Mouhamed parce que it euh, baax na ñuy leeral yu mel noonu nit boo koy gis ci palaato nga jékki-jékki gisoo ko. faaw nga leeral li ko téye. ngir doomu aadama yi lay seetaan xam lan moo ko téye. Euh, Fallou. fi ma bëgg a njëkk ñëw ak yow. nañ ne doomi Cees la. Euh, yaa ngi sikkar nañ ni boo wootee. Cees waay ñëpp ay jóg mm-hmm. yaakaar naa ne woote nga fi Sorano mm-hmm. sénégalais yi ñëpp ñëw mais rawatina waa Cees euh, Fall sa diggante ak waa Cees waay lan la naqulu baada al ibtidaai bil basmala walhamdi wasalaati suma al awqala barke borom Tuba ñoo ngi wax asalaamaaleykum àdduna di nuyu képp koo xamante ni rek euh, yaa ngi jàkkaarloo euh, télévision bu mag bii di Prestige Thiès mm-hmm. di jox kenn ku ci nekk wàcc waay bi ko sunu boroom jox euh, di nuyu kilifa kër gi waaye yow mi nga xam ne yaanu dalal itam ñu ngi lay nuyu euh, di nuyu itam yoo xam ne mi ngi ci sunu wet dëgg yàlla di ko bégee mm-hmm. waaw ci ci li mu nekk wax dëgg yàlla comme ni ñu leen di bégee di ziar bàyyi ni nga ko waxee euh, di ko ñaanal sunu borom dolli suturaam te itam wéral ko bi jaay Cheikhul Khadim mm-hmm. di nuyu itam waa Thiès gépp mm-hmm. waaw li nga laaj laaj bu am solo la. wax dëgg yàlla euh, sunu diggante ak Thiès euh, maanaam ci misaal ni ma ko mën a leera leeraale maanaam diggante la boo xamante ni euh, man ci sama jëmmi bopp damay jàpp ni ab dongo mm-hmm. waaye <clears throat> Thiès ci boppam mën naa ko def comme tey jëmmi doomu aadama mu doon mm-hmm. maanaam ab sëriñ. Mm-hmm. ndax li tax mooy tey. ñi nga xamante ni ñoom lañu yàlla boole. ñu doon sunu ay wasila. Euh, fii lañ juddoo. Mm-hmm. ku ci mel ni si Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nii mm-hmm. euh, ñu di ko ziyaara. Mm-hmm. moom Cees gii la gane àdduna. te itam bëri na fi ay sang yoo xamante ni wala ay kilifa yoo xamante ni dañu nekk ci réew mi. te yàlla def euh, ñu nekk Cees. wala ñu dëkk Cees kon man itam su fekkee ni sunu borom ci mbaaxam ak ni muy programmé. Euh, moom ci boppam moo nu bind ñu doon doomi aadama mu euh, dëkkaleenu Thiès ñu juddoo fi. Hmm. kon itam jaadu na ñi nga xamante ni ñoom lañ fi dëkkal. Hmm. Euh, maanaam li war ci suñu diggante ak ñoom mooy jàmmoo. Hmm. ak itam rafetoo. ak itam demlanteeg dikkalante ba tax tey boo wootee. boo tourné gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Thiès. te ni nga ko waxee rek noonu la demee wax dëgg yàlla fépp fu nu wootee ci biir dëkk bi. ak. bu dul sax ci biir dëkk bi euh, lay gën a sedd suñu xal mhm. bokk na ci ni dañuy gis ni kat euh, ñi nga xam ni man ak ñoom ñoo bokk dëkk ñoo fa ëpp te loolu itam wax dëgg yàlla du man maa ko ji ci ñoom waaye seenu baax ak euh, seenu mën a jàpp nag ndax nitu Cees moom day day day dañoo mën a jàpp ñoom dañoo mun sot moo googu waaw dañu mun sot Ablaye Sow xam na ci dara mhm. dañuy sot wér na wér xam nga loolu njàngaleem yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa wax ni Euh, bëgg gi doomu aadama di bëgg réewam hmm. mbaa bëgg gi doomu aadama di bëgg ab dëkkam hmm. dafa bokk ci euh, gëm yàlla hmm. waaw kon nag bu fekkee ni euh, bëgg gi ngay bëgg sa sa sa dëkk moo lay poussé képp kun ni ci dëkk ba lay def ci dëkk ba la dëkk daanaka lépp lu muy def yow daf lay neex dañ ciy gis sa bopp fi ne nii man tey wax dëgg yàlla bu ma leen gisee damay damay damay damay kontaan ndax itam fu ma man di fekk rek dama bu nu waxee dama naan ñii kat xam naa leen ndax maa ngi ñoom ñoo ñoo bokk dëkk même bu relation yi demeewut noonu itam loolu puukare lay doon ci ngël moo tax euh, waa Thiès dañ leen ci euh, sant bu baax ci taxawaay boobu di ziar itam képp koo xam ne rek kat yonent bi nga ak këru diine boo mënti féeta la macha allah euh, Fallou mhm. li nga leeral am solo trop mhm. mais Fallou dañ gis mhm. sa diggante ak Papa Ndiaye macha allah ngeen nekk Thiès bokk Thiès di fi def lu fi kenn deful nag macha allah euh, ñu ngi leen di ñaanal yàlla la fa leen cat mais dafa am ñuy laajte. Mm-hmm. dañu doon gis Papa Ndiaye ak mm-hmm. Fallou mm-hmm. fu ñu gis Papa Ndiaye Fallou ngi ci wetam di ko aw dëgg la waaw ñu dem a dem a dem. Mhm. ba gisatuñu. Mhm. Euh, fàllu mhm. ci côté Papa Ndiaye. dañuy gis na Papa Ndiaye moo ngi def yëfi boppam. fàllu ñoo ngi moo ngi def yëfi boppam. comme Sénégal comme lu ma doon wax Ablaye Sow. dafa am loo xam ne bu ñu ko gisee. Ah. dañuy yaakaar ne dafa am lu xew. problème bu xew. man ñu bëri dañ may demander lool. léegi fàllu sa diggante ak Papa Ndiaye. lan la problème moo am. ba nekkatoo ci wetam. wala da nga gis ne yow beru comme ni ko Ablaye Sow waxee jéemal demal sa bopp. moo tax nga def loolu wala lan moo xew seen diggante ak Pape. waaw euh, di sant yàlla bu baax diggante boobu moom euh, liñ ci gën a sant yàlla mooy euh, sunu borom mi nga xamante ni. Hmm. maanaam mooy boole ay doomu aadama. Hmm. te itam mooy sos mbokk. Hmm. maanaam sos gi mu sos ma bokk ak moom dama ci sant yàlla bu baax. alhamdulilah di wax ni Pape moom yaakaar naa. li ma ciy wax bari na lool waaye nag segam euh, ni nga ko waxee rek kenn mhm. ku ci nekk itam kii laaj moom. Mhm. Euh, ku ko tontu rekk la bëgg. ko tontu Pape sama sama mag la. Mhm. Euh, sama kilifa la. sama jëwriñ la ci li ma nekk. waaw ndax danoo bokk lu nu mënta séddoo. muy ñoo bokk wayjur ñoo bokk lépp. moo doon koo xamante ni itam wax dëgg yàlla lépp lu ma mën. ginnaaw yàlla ci ginnaawam laa ko mënee. macha allah waaw moo ma tette moom ci ginnaawam lay topp ba tax tey bu ma xawee sax am ñaar ak ñett di ma ràññetle ba di ma dégg. nga xam ni wax dëgg yàlla euh, sama kilifa la. Mhm. tey jii mën naa wax ni euh, sunu boroom def na ci moom loo xam ni bu fekkoon toon ni dañu ma bàyyil li ngay def muy way. Mhm. ak lu mu metti metti metti itam dama koy bàyyi ndax sama kilifa la sama mag la te itam euh, ni ma ko waxee rek lépp rek ci ginnaawam laa ko laa ko mënee ak itam euh, mu am na cër boo xam ne daf nu ko jox waaw am cofeel goo xam ne ak kersa goo xam ne sax daf ko am sama diggante ak moom euh, moo tax ci côté boobu moom dara dara xewul ci sunuy diggante dafa fekk ni nag léeg-léeg itam ni ko Ablaye leerale nit mhm. buy nab nabi mhm. ba mu yàgg rek dina jéemeen dina jéem la mu mën a kus néew mhm. mu xool nu mu koy lepp lay am day rafet day rafet te itam moom wax dëgg yàlla euh, rafetal na ci lepp man itam ma ngi góorgóorlu ba lépp fépp foo xamante ni maa ngi fay wara dem mhm. ginaaw yalla ñun ñaar ñokay am. ma sha allah fallu leral bi am mhm. euh ce digeunte ak Papa ndjay dara am mhm. jamm ak ma sha allah rafetal nga lepp kon nak wa senegal de ngeen ko fallu ngam waxe lepp leer ablay dafa am benn problème bu ma nit ñi posé pour ma laaj ko Seydina Abba daf fi organiser benn spectacle bu mag fii Thiès ñu gis ne Ablaye sew maanaam fës na ci programme bi lool sax ba nit ñi ne Ablaye Sow euh, ci programme bi la bokk mook mook ñoo tëgg programme bi ñii na ma tey lii Abba doon def Thiès mhm. tey Ablaye moom moo ko waroon organiser ablaye yow tay lan nga mu meuna leral ci programme bi nga xamne aba abba da nga bok ci bir ko production nga wala sa xarit la nga ñew jappale ko wala lan mo xew wa dërëm aba mom sama sama rak la sama xarit la euh, ñu yàgg aussi torop mu jox ma cër lool ba lepp lu muy dugg daf may wo ne ma lii ak lii ak lii lan nga gis ma dugg wala ma bàyyi xam nga nit bu la joxee cër bu toll noonu aussi yow dara war la lu nga delloo ko ko bu ma ko woon deux heures du matin fu ma mën a nekk dina ma fekk bi muy organiser aba daf ma aba show daf ma woo ne ma lii ak lii laa bëgg lan nga gis ak nan nga gis ñu defee ko ma wax ko li mu ne ma dama bëgg nga ñëw Dakar ñu lépp nga xam ni dangay jiitu nga defal ma lépp ma ne ko du ma mën a ñëw Dakar mais yow loo dugg maa ngi ci donc loo dugg maa ngi ci foo mën a dem muy dakaar cees région Sénégal yëpp foo mën a dem dinaa fa jiitu coordonné ko. def ko nga xam ne dangay ñëw liggéey dem sa yoon. mu ne ma Thiès laa bëgg a njëkkee. ma ne ko amul benn problème Thiès sama dëkk la te dëkku aar te fonk respecté nañ artiste. loo fi def nit ñi dinañ la wusi ji leen ngor rek. macha allah loolu aussi ma ci gërëm waa Thiès. parce que yombul. Mm-hmm. nga organiser ñu wusi la. Mm-hmm. Euh, Ablaye loolu yombul. non yombul yombul. waaw Cees waaye dañu am fulla. waaw waaw loo leen jaay mun nañ ko jënd dañ koy jënd. waaw ndeysaan ndeysaan. Cees. Mhm. ji teraanga rek. non maa la ko wax. loo ko mën a jaay. Uh-huh. buy dee sax du la wuyu. waaw mais Ablaye dañ ne tey programme mu Abba boobu. Hmm. ña ñëw ñëpp. nee nañ Ablaye moo leen yëkkati. tey jii ci sa mbaax lañ ñëwee. parce que mun nañ ne xam nañu Abba mais yow la ñu gën a xam. tey est-ce que yow woon ne tey jii mun nga organiser tey genre bu demee noonu fii Thiès wala yow pare nga pour organise lu mel noonu. waa dërëm ñëpp ñi fa ñëw gëwuma ni maa leen indi. Ah. waaw man gars yi la ñu wax de. non man gars gars yi nee gars yi nee nañ Ablaye Sow moo jaay bii moo fa indi gars yi. gars yi wax nañ loolu de Ablaye. Eh, Abba li muy def neex na sénégalais yi. waaw neex na sénégalais yi mais bokkul. Mhm. parce que xam nga Abba tey dëkkul Thiès donte ne cees waaye bëgg nañ ko mais dëkk fi tey. Ablaye Sow gis nañ ni nga sonnee ci affaire Abba boobu. sama nit la mais ci côté bii yëg ci côté lépp. te dañuy gis ne programme Abba da nga ciy da nga ciy faral di sonn. Mm-hmm. macha allah ba ci bii mujj nii bu njëkk baag bu mujj bi yëpp. Mm-hmm. nee nañ macha allah Ablaye Sow 90 pour cent yëpp Ablaye Sow la. Mm-hmm. kon est-ce que yow jotul yow nga organiser lu mel noonu Thiès woo Thiès waayu ñu génn. waaw waaw laay. waaw leer na la rek. non wallaahi lépp lu ma def rek. yàlla rek ma tiim. ndeysaan moo tax ma def ko ndax lim ma ji. loolu la rek. te aussi nii nii bu ma waatoon suba. Mm. ne ma gannaaw suba dama fi bëgg a ñëw. ma def li ma defaatoon. te xam naa ni Cees waay dinañ ñëw. mais pour man nii nii. Mm. parewuma pour pour pour pour di organiser sérieusement paré go pour di organiser ay spectacle Thiès non non sa digënté ak aba couleur bu yag la wala lu lo xamanteni ni ay spectacle yi ni moko indi wala lu yag la waaw lu lu yag la Abba moma gisal bopam rek bëgg ma machallah ñuy dégganté téléphone di waxtaan xam nga man nak bo bëggé nek sama xarit rek mm-hmm. woma ci football waaw man boo bëggee nekk sama xarit rek dërëm. Mhm. xam nga émission bi 17h nga ko waroon def. waaw ah. damaa football woon moo tax. xam naa lool Ablaye xam naa lool <laughs> man xam naa ne football moo tax. nga pousse ko ba 20h. moo tax ba pousse ko ba 20h. xam naa lool <laughs> mais wuy ma. Euh, équipe nationale noo ko gisee. match démb bi dañu dóor. Mhm. yow xam nga football. Mhm. parce que yàgg nga ci voyage nga ci def nga ci lu nekk. ban xalaat nga ci am. Ah, ban xalaat laa ci am mooy. <coughs> pour équipe bi gagné. waaw ban xalaat laa ci am mooy. Euh, compétition la ku nekk da nga indi say 23. ñi gën a xarañ ci sa dëkk. ci ñi nga gën a am yaakaar. ñu teg euh, ndam. muy coupe bi ñu naan diw moo ko war a jël dëkk bu nekk. war ko jël euh, ndam nag yàlla ko yor. yàlla pare na démb xam na koy jël démb. macha allah mais dañuy sabablu. Mhm. sabablu yi bi it aussi mooy loo gis dafa am yoon. Euh, man duma gars wax nañ ba ci Aliou Cissé par exemple man duma duma critiquer coach duma dingat coach mais demb demb jang na ci mom lu bari lo xamni ni par exemple ni euh, coach mo wara gagner équipe ki match demb jang na ko ci manam match demb bi boko xolé xoolee ba xool Aline Cissé moko waron gagner ci yoon parce que tay jii Lai, ci sama xalaat bu mhm. fi def kenn def ko fi ah. mhm. coach bu je Sénégal. Mhm. li def kenn def ko fi. côté statistique wax. nombre de victoires, yi mu def nombre de défaites yi nombre de nuls. yi. amul benn coach bu ko fi def. allah loolu yàlla jàppal na ko ci. mais football dafay toll moment boo xam amul sentiment. day toll moment boo xam dañuy dem ñi ngi def li ñu mën mhm. mais ki ci biti moy mhm. lire je moy xam mhm. parce que mënuma concevoir ñaar tay ji nga am axe de métier moy défenseur de métier amna benn boy bu nekk pigine pap Abdou xawma lan nga am défense de métier nga war ko jël dugal ko ci équipe bi mu football ngay ngay ngay kole mhm. ngay jëli koo xam milieu terrain muy mhm. Cheikhou Kouyaté par exemple mhm. mais kii mi ngi titulaire deukum té li la fay jouer ak central la fay jouer mu nekk titulaire deukum ñep xam ko muy def lu ne éliminatoire nga indi ko Sénégal ñep gis ko ñu xam ki mo tax convoqué woo Karambooj mais kooku poste de prédilection am loolu la pourquoi ngay jëli numéro 6 wala milieu terrain diko indi diko diko diko convertir diko def axe amul fenn non non boo xoolee démb algériens yi dañoo dañoo dañoo dañoo mel ni ku ñu doon fooyee xam nga lu tax. waaw ah. xam nga tax. ku mhm. Koulibaly lañ koy jël sëf ko lépp gars yi def pressing ci kawam. kële bu libéré. Mhm. bu ñu defee un contre un bu ñu ko defee pressing ci moom Cheikh Kouyaté. Mhm. mu bàyyi gisoo harcelé nañ ko ñaari yoon bu contrôlé day lajj muy ci milieu terrain bi ñu harcelé waat ko ci seen axe mu contrôlé ci cuisse ga yi def pressing ci kawam mu génne bal bi corner. macha allah c'est parce que loolu du postam nañ respecté sénégalais yi lii nga ko nag. non xam naa ñun ñëpp dañuy. danga leeral quoi dañuy liir jeune. waaw dañuy liir danga leeral ay jaarkat nag waaye yàgg nañ ci de. ah eh, leer pour eh, daa mën a wax. benn baa ngi non dañ naan jaarkat la eh, dàq Ablaye bi may football. waaw Cheikhou footballul. <laughs> pour mu clair rek bi may football. waaw oh. Kripin Diatta footballul. <laughs> Ah, ah, ay ndaanaan a toog. waaw non pour mu leer xam nga. aussi mbal rek mu dugg. xam nga aussi ndaanaan baa ngi. lenn aussi sonal nañu mooy euh, absence kii dafa feeñ trop sansu su Idrissa gan gay waaw dafa feeñ trop. macha allah dafa feñ torop day toll moment bo xamni football technique mo koy gagné. macha allah ak finesse. macha allah gabarit amul jëri Messi amul gabaré té ku mu jàpp rey la. ma la ko wax Iniesta amul gabaré té ku mu jàpp rey la. ma la ko wax mais dañuy am problème sax bal arrêté amna demb lo xamni xam ni mënut a nekk Henri Saivet mënoo jël nga convoqué ko ay 5 minutes de la fin mënoo amul la njëriñ. Euh, nu mu tudd Mbaye aussi mais nekk na ci éliminatoire def na nek na ci mais dugg na première fois doxul même boko ko indee deuxième fois boko ko titularisé deuxième fois premier mi-temps bi yépp gis nga limu mu mhm. ba terminer match balé wala dañ ko changer aussi doxul mhm. mais teelal dugal Mbaye Diagne parce que match du 5 minutes nga koy gagné du 10 minutes nga koy gagné non non ndeysaan bo amé équipe am ay joueurs mhm. ay professionnels lañu ñom ñëpp ay yem ku nek sa club meilleur buteur nga fa nañ ñu dugalal suñu joueurs yi nga xamni amal nañ ñu njëriñ dëgg la complété ñu merci laay conseil dégg nañ ko bu baax Fallou mhm. damay dikkaat ci yow mhm. euh, sa diggante ak woykattu Sénégal yi mhm. ban ban ban ban lan nga seq ak ñoom jàmm ji nga seq ak ñoom tey waaw wax dëgg yàlla euh, jàmmoo rek ni ma koy waxee sànq. moo hmm. dox ci suñu diggante ak képp koo xamante ni rek. Hmm. tàggkat yonent bi nga. Hmm. ak képp koo xam ni sax. da nga leen di béggee doonoo maanaam jàngkat. waaye moom lañ sekk ak ñëpp itam. ndax li li war a tax jàmm jooju am mooy euh, ñun. kenn ku ci nekk rek ambassadeur nga ca fa nga nekk. waaw ñun itam ñun ñëpp rek Euh, segam dañu jàpp ni dañuy wane lu baax. Mhm. kon nag ñun ñoo war a njëkk a jàmmoo ñëpp. balaa kenn di nu boole. te itam ñun ñooy ñi nga xamante ni li may wax toujours que ni. Euh, li ma gëm man. mooy li nu yor ku nu ko bokk leelul ñoo la ko gën. maa la ko wax mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag kon ñi nga xamante ni itam euh, dañuy nab nab ci loolu. jàmmoo rek moo war a dox ci seen diggante. ndax ñoo ñu ay du waruñoo doon ay concurrent. non waruñu doon ay. noon hmm. wala ñuy doon ay yoo xamante ni daal maanaam doonul luy doxal ay diggante parce que kenn ku ci nekk ci ñun rek Euh, référence nga war a doon kenn ku ci nekk ci ñun aussi itam maanaam royukaay nga maa nga ci fi nga xamante ni fa nga nekk moo tax ñun euh, loolu moo nu ji leneen lu nu def lu dul loolu rek ñu ngi koy yàq waaw moo tax bennoo gi mhm. euh, man wax dëgg yàlla jàngikatu murid yeeg tiijaan yeeg ñépp samay xarit la macha allah dëgg yàlla ndax ni ma am leen teeg murid yi ni laa ci am lenteeg yeneen tariqa yi yëpp te itam loolu dañuy ñaan euh, sunu borom saxal ko te képp koo xamante ni itam wax dëgg yàlla euh, yaa ngi yëngu ci am daax yi mm-hmm. man loolu laa lay digal waaw loolu laa lay jox comme seexa ndax itam euh, sëriñ bi Seexul Xadim lim nu digal mm-hmm. daf ni nu bu leen noonoo mm-hmm. kenn ku ngeen gis rek gémmiñam muy tudd ci làmbañam laa ilaha illallah Muhammad ah, Rasul kon nag kooku yow waxu waxu la ni la ab jàngkat mbaa dara moo tax kon yow ab jullit fu mu mën a nekk nag mhm. ak nu mu mën a mel mhm. yow xajoo ko mhm. waaye doonal koo xamante ni itam jàmm rek lay gis ci yow te na nga ko yéene jàmm jooju macha allah Fallou euh, sa li nga organisé woon Sorano muy sa jàng gis ñu fa Papa Ndiaye lu xew ah waaw loolu moom xam naa dangay laaj rek waaye daaw moom li tax xëy na gis nañ ko ndax euh, Pape Daaw dama ko boole ci ñi ma ne euh, bis bi. mais gis gisuñ ko ci kaw seen. ah kay. ñëw na ah kay. ah gars yi xanaa. Ah, du laay la kon nan dugg ci YouTube bi ah, xool. man dañ na ma. <laughs> man moom laay <laughs> dañ na ma fàllu fàllu programme bi mujjee tëgg Sorano gis ñu fa Papa Ndiaye. waaw programme bi ma mujjee tëgg Sorano. Mhm. mooy daaw te ci laa ko njëkk a tëggee. Mhm. Pape da di koo xam ne lépp lu ma mën. Mm-hmm. wax naa ko fi léegi ci ginnaawam laa ko mënee. dëgg la xool naa xool xool xool du ma ko wonaan ko kaay aw ma mbaa kaay nàngam ma déedéet. moo mm-hmm. mm-hmm. ëpp loolu ci man. dëgg la ma xool ni xëy na euh, cër bi ma koy mën a delloo ci bis bi. mooy dama koy jox cër bi en tant que. sama grand frère. waaye jox ko ko itam. ngir ni li ma mën ba tax tey may woote ci ginnaawam laa ko mënee. macha allah moo tax ma def ko muy parrain wax dëgg yàlla. mu ñëw yëkkati ay kàddu yoo xamante ni képp ku nekkoon ca saal ba sa xol tooy na. waaye itam yëkkati ay taraanga yoo xamante ni macha allah euh, jox na ko. Fallou. Uh-huh. loo ñuy may deux minutes pour ñu tëj émission bi. ah ni may moom maanaam du jug ci ku dul ko tedd ki rek. xam naa mooy doon itam euh, li nga xam ni moom la ñu liggéey bu mujj ci koor euh, di di yaasalaam bi ay allah ya rabbi habli salaam borom yërmande may nu jàmm ak salaam دعوتك اليوم صلاة بالسلام له فليستجيب دعائي يا سلام دما جوك دي سنتكي ما يا سلام تموي ربنا بوربي تدو سلام الله دي بوري الله ميدون سلام كجو خير قلقه صلاتك سلام دقنا صلاته دقنا سلام مجوخ نجيون عليه السلام يونين مملبور يالله جوخ سلام mu doon yërmandeem may nu jàmm ak salaam ay allahu ya rabbi habli salaam borom yërmande may nu jàmm salaam ci barkeb sëriñ bi nu may tey salaam ci laa ñaane buur yàlla jàmm salaam ka dem géej ba ñëw naa boroomam salaam na daj xeet wi buur yàlla yow mi salaam yàlla woo ñépp ña daaru salaam nanuy maase ñun ñépp nako ya salam masallaw ki ya yalna yalla def jamm def jam. ndax eh, jamm rek mo mata ñaan ablay loy teje bala ma tej ablay sa digënté yak Aziz ñaan lan la <laughs> waaw waaw Aziz mom. waaw Aziz mom. Aziz mo nani ni man may mom waaw sama sama mag la sama xarit la sama lepp la ndax mom dafa bax mhm. xam nga ci dara ku respecté nit ku bëgg nit mhm. ku mën a sonn ci nit mhm. mooy Aziz macha allah waaw dama koy ñaanal gudd fan ak wér macha yàlla bàyyi koog njabootam ak soxnaam ci barke ndax lu ma mën a doon tey mhm. ginnaaw yàlla ak yonent bi ci aar Aziz la macha allah waaw Aziz dafa da tukki Espagne sax bind film ne rôle bi Laye Sow moo koy joué kooku kuy def loolu rek. Mhm. am na fu mu la teg te mu ngi lay bàyyi cër. ba ci tolof tolof gii ngay wax. xam naa muy yoonu ndaw. lépp lépp Aziz ñaan la. macha allah waaw dama koy ñaanal yàlla rek moom yàlla na ko yàlla mottali yéene. looy tëjee. waaw li may tëjee mooy di ñaanal ñëpp. Mhm. ñaanal Sénégal yàlla def fi jàmm. Mhm. ñaanal kër gi yàlla def fi jàmm. saxal ko gën ko naatal. ci télé yi ag momit mu ag fa macha allah yow borom bax nga di ñaanal signal moom waaw momit di wax eh, yalla nañu yalla may ndam ci coupe d'afrique bi macha allah eh, yàlla yàlla indi ndam li amiin eh, seen émission bi mu nañ ko waxtane dañ ci ando nak seen ndox o tiali fi lañ koy defere fi ci Prestige mm-hmm. macha allah yow mi ko soxla sel na baxna te boo koy naan bépp jàngoro bu mu fekk ci yow da koy dindi macha allah moom lañ ànduloon ci émission nañ ko waxtaanee. Euh, may sant ñëpp di gërëm ñëpp. fàllu lan ngay tëjee. waaw di sant yàlla bu baax mi nu may ñu tàmbali ci bismillah ba actuellement ngi ci alhamdulilah. kon di bëggee képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo ak ñun. Mm-hmm. waaye di profité rek di waxaale bis bi nga xam ne ñu ngi koy wootee euh, ren incha allah. ma ah? le 7 juillet. Sorano le 7 allah ñi ngi ciy jox ñëpp rendez-vous. di wax ni incha allah mooy dimanche ji ñu jëm rek. waaw waaw waaw euh, mu dellu see ci kàttan yàlla ñi ngi ciy woo askan wi yëpp. Mm-hmm. rawatina waa Thiès oh. ko yàgg di waxee mhm. képp ku fa teew neex na nu mhm. waaye bu nu wëlbatikoo gis ñi nga xam ni euh, ay Cees walla ni ñun wax dëgg yàlla suñu xol dina gën a seet moo tax ñi ngi ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn bàyyi bàyyiwunu fenn euh, bépp doomu aadama daal ak ci tarixa bu mu mënti féete rek mhm. jàppal ni suñu toogaay bii di wax bis bi euh, def ko sa invitation bu nu joti siwul ci yow moo tax bàyyiwunu kenn di ko yëgalaale aussi itam borom kër gi ak waa kër gi yëpp ñu ngi leen ciy invité macha allah incha allah moom yaa ngi bàyyi yéen waaw waaw lool kenn wax waaw Seydina yooyu tam incha allah bëgg nañ nga teew ci sant bu baax a baax a baax euh, sunuy waa euh, kër itam mhm. euh, tey jii rek wax dëgg yàlla sunu maam bu jigéen bi jur sunu wéyjur dafa génn àdduna ñu ngi koy ñaanal moom itam sunu borom mhm, yéege ko ci àjjana yi gën a kawe bi jaay Cheikhul Khadim ak mhm. bépp dawalu jullit boo xamante ni jiitu nga rek sunu borom yërëm la tàbbal la ci àjjanaam yi gën a kawe di sant itam Euh, maam làmp ndegere mi nga xam ni moom laa àndal bi may ñëw ci ci ci jataay bi waaye gi nga xam ne ñoo nekk ci sama ginnaaw aussi itam ànd ak man ci liggéey bi waaw moo ngi noonu seen émission nañ ko waxtaanee programme am baa ngi noonu mm-hmm. la 7 juillet Sorano yaakaar naa ne ñëpp nañu dem wuy ci ki nga xam ne mooy Fallou Ngom mm-hmm. taal bi Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké bi mm-hmm. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ki jaar ci solo bi mooy Fallou jaar nekk Pikine tali bu bees muy sama xarit di sama doomu ndey moom day fa lépp lu may sol ci émission bi moom moo koy ñëw jox ma ko kon Fallou jaar maa ngi lay ziar di la sant di la gërëm tey seen émission nañ ko waxtaanee ñu dalaloon ci ñaari ndaandaan ñaari ndaanaan Ablaye saw ñu gën koo xam ci Seydina Mo Fallou ngoom ñu gën koo xam ci laa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm ki newoon ci caméra bi mooy ki nga xam ne mooy Malick euh, Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Mayram Diallo bàyyi nag euh, ñoo ngi koy sant di ko ñaanal bët bi rees ndax xam naa ne bët bi moo daa yeew tey bët bi génn <laughs> waaw bët bi gonflé mu woo ma ne ma dërëm sama bët bi daa gonflé <laughs> wowal fallu ak lay ngeen def émission bi ñoo ngi ñaan yàlla bët bi rees ci kàttan yàlla alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup